من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الظهور وإذا مروا بالنعم مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخضوا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يبدون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حصنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم وسوف يكون لذاما بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إنا سننزل عليهم من السماء آية وظلت أعناقهم لا خادعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عن معرضين فقد كذبوا وسيأتيهم أنباء ما كانوا به يصطلحون ألم يروا إلى الأرض كما أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينتمق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فلا باء بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أنا صلنا على بني إسرائيل Euh, sëriñ sànjari Diop barakallaahu ñu ngi déglu mbir mi ak di ci taataan di ñaan yàlla itam mu maye ijaaba ko defee mbokk muy dugg si mu def 33 884 87 59 alhamdulilah Serigne Sanjiri am na benn tur bu may bu may laaj pour ku ma ci dimbale tur ñuy tuddee yaa jaayibu jaay bu waaw ndax euh, gis naa sëriñ si bëgg ko lool waaw man dégg naa ko lool gars yi di koy wax fii hmm? dégg naa lool gars yi di ko bari li ñuy wax fii tamit waaw mu bokk ci turu yàlla yi nga xam ni mhm. taalibe yi dañ koy jëfandikoo mhm. mais nag mu mel na nag am na tur yu ko gën a siiw defe naa mm-hmm. waaw ndax am na tur wu ñuy tudde jalaal ismu jalaal ismu jalaal mm-hmm. defe naa bokk na ci li gën a siiw ci li taalibe yi wax mm-hmm. ismu jalaal ismu jalaal maanaam ismu jalaal yow loo ñu ci mën a baaxee ci ismu jalaal jalaal di ahamu saqaw xalaw yes hmm. ah jalaal di moom mag ñi dañ ne xaw ma ngànte bi hmm. ñu ne ngànte bi moo ëpp moo ëpp moo ëpp njëriñ li ci dañ ko waxe waaw xam naa moo tax toujours ñu baree bari ci di ko di ki di ci moytu lu baree bare baree baree hmm. moom Jalaal. waaw Jalaal ma ne na ñu bari sax nee nañ gàncax bi daal moom moo ëpp moom moo ëpp euh, njariñ. Mm-hmm. te comme ngànte bi comme ngànte def ci bëri. ngànte bi moo gën a bare. njëriñ waaw ci lañ ci lañ wax. Mm-hmm. am na ñu bañ loolu nag. pourtant am na am na ci am na ci wéyandara taay bi de ak yombaam. Mm-hmm. waaye boo xoolee tamit li muy li muy def li ne moom lay def. Hmm. diw ji ñu ne jalaal ko jàpp diw jékki-jékki géntul këram ñu ne jalaal ba mu doon laal la ñu ne jékki ñu dem ñu ne jalaal ba mu doon laal la. Hmm. Ah, ah, jalaal moom dañ ko tagg kii ba ba man ah am na nag ñu nekk ngaa kuñ ko teree am kuñ ko teree rek bëgguñu la. waaw hmm. ah, am na ñu wax ne kuñ ko teree. yow dañ laa bëgguñu la daal parce que dafa bari njariñ. waaye am na ñu jàpp tamit. jalaal bi moom ne daal moom moo moom daal dafa xaw a yéeme ci lool lool dafa dafa xaw a yéeme ci lu baree baree bare waaye bu dee yoon bii de moom koo xamante ne yow bëgg nga suñu borom joxle ijaaba man maanaam ijaaba ijaaba nga xamante ne ijaaba mooy loo bëgg suñu boroom dem ci waaw ubbeeku mu ne del liggéey waxaabu li ngay liggéey waxaawu. waaw maanaam bu bu bu dee bu dee bëgg nga suñu borom bu dee bëgg nga. loo bëgg suñu borom jox la ko. Mm-hmm. nga am ijaaba. Mm-hmm. yëkkati ko ubbeeku. Mm-hmm. nit ñi bëgg nañu sopp la. nee na day liggéey waxaabu. waaw. waxaabu xam nga waxturam bi waxaabu di 14. nee na koy liggéey. waaye boo koy liggéeyee danga koy liggéey ci jalaal. 644. da ngay kon da jël jal maanaam li mu li mu 644. voilà da nga jël da nga jël waxa xam nga waxaabu 14. da nga waaw. waaw ko fay bàyyi li moom nga di ko liggéey ci ci ci ci jalaal. ci ndax yoon bii moom boo ko fa jaaree moom moom tamit day dox ci jalaal jalaal tamit dox ci moom. Mm-hmm. waaw moo taxoon bi nga ko waxee moo koy rocc ca suuf ndax jalaal moom gars yi am na doole gaaw na xaw ma ndax li mu am am doole gaaw moo tax. nit ñi song songandoo ko mu leen di gaañ am foo ci kii waaye yoon bi de moom ku ci topp moom du la mënu laa mënu laa gaañ fen bu dul jox la ay wërsëg rek ndax boo jëlee waxaaw nga bind ko si 644 li mu li mu jëlaal danga koy da nga da nga koy def saafara rek moom sangoo ko su ko defee nag ngay bu ko defee nag ngay zikkara 644 bu dee boo tax nga di ko zikkar moom 644 kon day dox waxaaw dina dox dina dox ci ci jalaal jaar tamit dox ci waxaaw ndax yaa yaa ko liggéey ci li mu waxaabu moom koy def moom doo ci am ngànte te di nga am lu bare bare bare bare bare hmm. mu ne moo tax mu am solo lool soo ko liggéeyee juróom-ñeenti fan moom di nga am ijaaba laa chakk fii amul sax wax hmm. te di nga ubbeeku di nga am xaalis mooy nga jël waxaabu hmm. di ko liggéey bind ko gis mu jaar boo ko bindee rek sangoo ko léegi di ko léegi nag di ko léegi di ko zikkar ci jalaan 644 di ahamu saxaxu xalaw yesu loolu defe naa kon man war naa ci mën a jàpp. ah waaw. <laughs> yaa wahaabu. Mhm. moom cent quatorze la. waaw wahaabu quatorze la. quatorze la. Mhm. nga jël. nga bind ko nga bind ko six cent quarante quatre. cent quarante. six cent quarante quatre. ah nga bind ko 644. waaw li mu jalaal waaw. yaaw waaw. Mm-hmm. sangoo ko ci sang taayra. nga bind ko 644. waaw sangoo ko. di ko sangoo ko. di ko zikkar. di ko zikkar 640 644. di ko zikkar 640. loo nee loo waxati yàlla ne waaw mbooloo barke euh, xamul. ubbeeku mm-hmm. loo bëgg a suñu borom ci lépp tout ça. khabul mooy nit ñi dañ lay jublu yow it nga jublu nit ñi loo leen wax ñu dégg lu ñu xam wax la lu ñu am jox la koku moy khabul dégg na nak ci sayyid cheikh ahmed tidiane si radiyallahu anhu mu ni khabul moy nga saf yalla est-ce que waaw loo def rek neex na yalla neex yàlla mhm. moo tax mu ne xabuul moo gën a oyof istiqaama istiqaama nag mooy lépp lu yàlla bëgg yaa nga ca lépp lu yàlla bañ kenn du la ci mm-hmm. sax ci nag lool mu ne loolu nag baax na lool mais sama turandoo na daal xabul moo gën istiqaama moo gën a yomb. moo gën a yomb. waaw. saf yàlla daal moo gën saf nit ñi. waaw ndax mooy sa sa da saf yàlla. boo defee xabul. daañu sax danañ ci dem ba. Euh, ni bàkkaar daal yàlla mën na la cee mën na laa teggi man mhm. ngaa def sax lu jar bàkkaar mhm. mais yàlla moom mën na laa jéggal bàkkaar ba te defu ko mhm. kon xabul am na solo lool istixaama nag mooy ak njub njub te mooy nga sax ci lépp lu yàlla bëgg loolu nag moom sama maas bi xam naa ne yaakaar naa ne seen néew du fa àgg ak wahaabu ko nga bind ko ci ci jalaal 644. léegi nag 644 mooy ismu jalaal mooy limam. waaw mooy limu léegi nag nga bind waxaabu 644. waaw limu limu jalaal. limu jalaal. Mm-hmm. Mm-hmm. koy sangoo rapide. waaw nga bind moom da koy sangoo. Mm-hmm. mooy 644 bi bu waxaabu bi da koy sangoo. beneen. 644 bi nga ko di ko def ci waaw nga di ko zikar waaw waaye boo ko jaaree ci jalaal da lay gaañ ko jaar ci waxaabu ah ko jaaree ci jalaal daf lay gaañ ahamu saqaqu xalaw yes hmm? ko jaaree ci ahamu saqaqu xalaw yes hmm. day xaw a day de est-ce xam nga ahamu saqaqu xalaw yes am na lim bu ndaw boo xamante ne hmm. soo ko jàngee ëf ko ci ndox nit bu ko naanee loo ko wax def ko waaw xanaa ci jigéen ñu dëgër bopp yi la baax xanaa. ah jabar yu dëgër jabar yu dëgër bopp yi xanaa. waaw loolu rek am na solo boo ko boo ko boo ko zikkaree. daf ko ci ndox jox mu ne loo ko lu ko wax dina ko def. ah waaw. ah sëriñ bi loolu moom baax na. waaw boobu demoon ci kaw dañ koy dañ koy def ñeneen ñi rek te. waa xanaa leen leen ciy ragal nga bañ a ci ki nga ko war a def. waaw jàll ci ki nga ko warul def. Mm-hmm. xam nga boo yemee ci ki nga war a yem nga xam ni ci sa kilifteef la nekk te gën a dana gën a gën a neex nit ki nga ki ilif ko boo ko nee defal mu def boo ko nee bàyyil mu bàyyi waaw waaye boo waxee ni bu def bul dem mu dem bu dëgër bopp bàyyi bu ne kànja mun a maafe ñooñu waaw gisoon naa ndaw soo xam ni moom lenn la nee daal li muy déglu lu naqari jëkkër moom la bëgg a xam kon kooku defe naa ni kooku ko defoon dina baax. waaw dina baax ci moom <laughs> daal bu ko wóoree ni lii moo naqaree ni nekkoon nañu ca ca daara ja mm-hmm. am nañu suñu magum taalibe mm-hmm. eh, wax dëgg yàlla ku ku nit gën na koo jub waaw waaw maanaam nit gën na koo jub mooy lépp lu mu xam ne naqari na la xanaa mu mu xam mu réere ko mais bu la wóoree ne naqari na la moom du naqari. allahu akbar. waaw euh, doon nañu war a sukk ci ñam. mu raxasu bi mu raxasoo ba pare mu ngi jox ko mbokk taalib yi ñu ko yaa ngi may tooyal. mu. أسنعلي لغم <laughs> من فيه نيو خبرو أقول تويل من كن ويت كن ويت دوتكو ها ولا كون تويل بكن ويت دوتكو هي هي كوكا فيم نكيني خمنا عندنا ورا نك ما آه، واو خاونا كو بيدي ديس نك تي موما فيتي وون ماك نا آه، كون مي دوكو ماك ليغي واو موما فيتي وون ماك تي نك دغري فيت لول لول لول تاخول موري mais bu la wóoree ni lii moom neexu la mu xam ko moom kay boo ko doon rey dina ko def loolu mooy fit borom fit du am du am yaram borom fit fit borom fit moom toujours day tuuti waaw sànjiri danaa am lu ma la laaj amoon na benn mbokk muy kóllëre mu am benn jigéen joo xam ne dañu ko gaafal dañ ni ku ko takk dee mu moom dana ko takk mom moom nag ñoo bokkoon tur bu ko takk mu ne dana ko takk ñu ni déet mu ne dana ko def de yàlla dogal mu ñu may ko ndaw si bi ko mayee ndaw mu daal di dem fanaani fa waaye guddi ga jeexul balaa guddi gaa jeex mm-hmm. nekk na néew te li mu war a séq ndaw si bi mu ko séq ndaw si ba pare mm-hmm. ba mu demee fa mu doon sangoo mm-hmm. lañu dégg oo oh, rek lañ ci génn ba ñu ñëwee bi ñu ko ña daw bi ñu agsee ndax yuuxu ga kawe na mais yuuxu ga xaw naa xumb lool nag ba ñu agsee daal mi ngi na ku deewoon ci suba ba ngoon ممن بين أنا من لن تفكي هذا سجين لون هذا سيمون نتلى هذا سي يبو مفهوم غانو لا عندك مو دال مو ري مو ام مو دوي واو واو ندخ كوكو pexe de bu jot am moom du weesu la xam nga dafa am yoo xam ne basmala rek moo ci am moo ci moo ci mën dara. waaw man bismillahi rahmaani rahim. 111 wala 1111. man bis man basmala lu ko mën sax dama damay laajte la. basmala. waaw. est-ce xam nga bu fekkee ne iblis ak dooleem yépp. dafa yam ci bismi rek di 343 mhm. Allah rahman rahim dara ko te hmm iblis kanta dem mu tollu ak ni mu amé doole comme niñ koy waxé ak fa mu toll ci chay hmm te bismi la tolloon bismi 343 mom la iblis hmm léegi ñet tur yalla Allah rahman rahim, arrahim mo gisuma gisuma lu tay iblis comme lu tay iblis gisuma ko te bismi rek la tolloon ta basmala basmala lepp lu wax ci mom dess des est-ce que. iblis dooleem yépp lépp boo ko desee iblis bismillah la tolloon. waaw kon kooku su su ma ko doon takk loo may digal. <laughs> est xanaa ah xanaa mbaa doo jàng bismi mu jàng bismi loolu foofu rek lay kii de. mbaa doo ko uh-huh. jàng mu jàng ko. maa doo ko jàng mu jàng ko wala nga jàng alam tara ilaa rabbika kayfa madda zilla moom day lakk. tey lakk jën na moom. waaw ah, te sóoratu Furqaan. waaw moom day da koy moom da ko amee soixante-dix moom lu koy résister gis moom. Ah. waaw. soixante-dix moom lu koy résister ci doole. Ah. waaw waaw doon dina doon am doole dëgg te sagoo mu am ko. man daal kon yaakaar naa ne ndam soosu boo moytul dinaa ko xam dinaa ko moytu man. <laughs> Eh. alquran te nag wax dëgg yàlla dafa dafa bëtu de waaw hmm. ndaw nah, sa bëtu na lool comme teg sa bët kooku ñëw dem waaw kooku kay moom ki ko ki ka ca demoon hmm. sama wàllare la woon sama xarit la mais bañ ne ko ku ko takk dee mu ne ku dul amul nah. su dee rey su dee rey na ma rey ñu ne ko déet mu dem ñu may ko ko danga fanaani mu danaa fanaani ba ca yax ba loolu la waxoon de ndekete yoo yax ba mooy fa la bakkanam war a jaare moom dafa wóolu woon àlluwaam wala. waaye daanaka est-ce que gëmoon na tur yàlla. Ah, xam naa amul woon jotu di wax sax tur yàlla dafa moom fit la am rek. bul def nangam lay bañ moom kay lu buy def dana fokk mu jaar ko mu def fit de ñaar la dalay sauver wala mu kii la rek. waaw loolu daal dama xamul ndax taalibe yi danañ ci am pexe pour ku nangu ñu may la ko. <laughs> est-ce que ku bëgg daal soxnaa te itam ku bëtu la de. ñu ngi lay dégg. <laughs> ba maanaam. ña ko xam moom kenn ñemewul am na ñoo xam sax ñemewul ñoo ñemewul ñoo wéet ak moom. wala nuyu ko sax wóor na est-ce que. maanaam ndax nuyu ko wóor na ndax li ànd ak moom dara dara bu ànd ak dara di ko fiire ah, te ci kër la nekk ci njaboot am na am na am na ak ah, amul problème boo ko gisee nii xam ni kii jongama la mais loolu ko ci xalaat. xam naa limal nañ ko jëkkër yu takku. Ah, limal nañ ko ay jëkkër yu takku. buñ la ca biir ba pare te boo ko gis sopp ko moom. dafa bëtu ku soppul la. léegi nag kon ku ko bëgg rek man ngaa waaj ñu may la ko moom itam nag dafa xaw a ragal ndax ténj yu bare yi la bañ ah, ndax nee ne ténj dafa metti lool te yàgg te moom daal li muy ténj bare na bari na lool xëy na ku mel ne kaali dugay mën naa am xëy na moom mën na koo takk waaw moom de comme day aras di ñëw ah. comme que day dem aras di ñëw. waaw ku mel ne Kaay du daal. Mhm. mën na koo takk. waaw moom de. waaw euh, li ñuy wax ndax naan diw dana am jabari jinne yow noo ko dee gisee. jabari hmm? a jabari am na. am na ñu ko mhm. am moom. Ah. waaw. ñoo xam ne xam ne seen soxna si ñaareel ñaareel wala ñetteel bi moom du nit. waaw waaw te ñu ngi ak moom. te danga koy gis ne. ah xam nga damay dañuy am dañuy nekk fële gis ay famille yoo xamante ne dañ naan góor gi ñu xam leen ñun bu baax a faa dañ naan góor gi. Mm-hmm. soxnaam diw jinne la woo daa soxna jinne ne diw jinne la woo wax la ci doom yoo xamante ne daanaka kenn dundatu ci nag wax faat nañ seenum ndaw. Mm-hmm. mais ñu jot nañ jot nañ leen xam boo waxee ñun la diw moom. Mm-hmm. yaayam yaayam soxna góor gi jinne ja moo ko juróom waaw. man jotoon ngeen xam ne ñu fi parce que bu ñu fi nekkoon dañu toog ak ñun am lu ñu wuute ak ñun loo xamante ne du ñu mën a dundandoo. Mm-hmm. ndax seen yaay dañu benn parti boo xamante ne moom ñu dund ak mm-hmm. xam naa daal dañuy ñibbi seen parti ci àll ba rek ñu ne ñu ne dem na ñu ne faatu nañu xanaa. Mm-hmm. fekk ñu foofu mën a dundee. xaw ma nag foofu lañu fa mën a dundee normal am déet nag ndax dañu dañu parti doomu aadama. waaw xam naa mooy fàttali nit ñi. kon soxna boobu ku ko soxla rek bu ñëwee ci sànjir yi mën naa fexe ñu may la ko kon 33 884 87 59 léegi nit ki bu takkee jabaru jinne ndax dina mën a am ak moom doom ah, wax nañ léegi ñu ne am na ñoo xamante ne juddu woon nañu ba ñu xàmmee mais après yàgg toog tooguñu fi xam naa doom yi duñu duñu duñu mën a toog comme ñun ñi nga xamante ne cent pour cent nit lañ mm-hmm. waaw ndax jinne moom pour mu pour doomam nekk nit day nekk nit courage jinne moom te itam duna doog nit ñi mi day fitnaal doomu aadama yi fii parce que duñu bokk culture mm-hmm. mun nay fo sax fekk mi ngi lay gaañ waaw bu dee doomu jinne la nga xam ne yaayam jinne la bàyyam jinne la ñoom ñoom ñoom doo leen gis ñoom hmm. comme ni muy nemee fii rek ñaan moo ne fii mooy taal fii mooy bu ma oto yi fee mooy def lee mooy def mais bu amee dalay parti parti nit moom bu ko amee moom yàq yooyu dinay dinay dinay nekk ci moom te nag du maa dund fii comme ni ko comme ni nit cent pour cent fii hmm. Hmm. waaye dina am ak dina am jinne doom moom xam ne kii doom la waaye seen dund fii nag moom dina jafe lool. ah man ngaa dem ba gis doom ji doom jooju de xanaa war dugg leen war a mën a waxtaan ak papaam. Ah, normalement <laughs> normalement na mën a waxtaan ak papaam parce que comme papaam nit la yaayam mooy jinne. waaw mhm. ah. waaye du comme ni ñu ci gis feeñ yëpp daanaka dañ naan rek diw. Mhm. ñu la waa ñu ne la yaayam jinne la woon mais kooku sax moom nekkatu fi. waaw ah, mais nekkul dund dund doowul ak nit ñi comme nii dañ naan diw jabaru jineem ba moo ko juróon diw moom nga di nga gisoon di nga gisoon na mu meloon moo tax yàggu fi xeesaay baag so bu daan bu nit ñi daan toog fii sax mu toog fee parce que du mën a dund ak nit ñi ah. wala bu nit ñi daan nekk fii sax moom mu nga fee kooku moo tax ci lay tegtal yoo xamante ne dañ la naan rek jinne la woon yaay ji jinne la woon moo amoon ci benn parti kon mag doo mën a nekk fii cent pour cent moom est-ce que ah yàlla daal moom moo am sañ-sañ ci lu ko neex moo xam nit la moo xam jinne la kon daal defe naa nit ku nekk suñ ne bàyyi fa la gën mooy bàyyi fa waaw de comme moom ku ñu dugg rek ma sax waaye ku ñu dugg rek. bëgguñu ku ko xool. mu hmm. ne comme ñoom ku ñu laxasoo rek bëgguñu ku la xool. Hmm. bëgguñu ko jëflanteeg yow. waaw. Hmm. gisoon naa itam benn jigéen ju dafa am boroom kër. mu dem ba. doyal ci boroom kër gi mu laaj ko ni ko daal li ma bëgg mooy sama digganteeg yow laa bëgg mu dañ waa ji ni ko ëpp naa def ndaw si ni ko daal li wér te wér mooy xanaa beneen jigéen mais man ak yow moom dootul mën a nekk waa ji dem kaw dikk suuf ndaw si lànk ni moom loola moom du ci dellu ginnaaw waaje dem ci benn sëriñ waxtaan kook sëriñ bi sëriñ bi ni ko loo ci bëgg waaye si ne ko bu mu déggati alxayri ci àdduna ah mu dem ndaw si daldi génn ci sëy bi waa ji itam sëriñ ba defal ko loo xam ne du amati jëkkër mukk wante jamonoy dem ba waaye sa feebar bi mu demee ba ñàkk yaakaar moom ki feebar ñàkk yaakaar moom ki feebar daadiwoo ndaw si ni ko man maa la liggéeyoon te sama feebar bi óor na ma ni dootuma ci jóg te liggéey bi ma la def doo am jëkkër mais nag defuma ko ngir bañ la bëgg naa la bëgg goo xam ne nga mënoo di dund may dund góor di la takk ma di ko gis loolu mënoon mënu la nekk looloo tax léegi nag mu ni waaye si ni ko mu ni soxna si léegi nag man sama feebar bi duma ci jóg damay dem hmm. ah ndaw si daa di nii waay si kon soo dee yàlla na la yàlla yërëm waa ji ni ko looloo dëgg la baax na mais nag li ma bëgg mooy dama bëgg nga baal ma te liggéey ba maa ngi ko def ci béréb sàngam dama ko bëgg sul dama bëgg nga su yàq liggéey bi ndax nga mën a am jëkkër ndax man wóor na ma ne damay faatu te su ma sañoon itam yàlla may la jëkkër mu baalu ndaw si ndaw si di ko baalu ko mu wax wax ndaw si lànk ni du ko baal ba yàlla dogal na waa ji ci melokaan boobu ci la faatoo ñu wax ndaw si baal ko ndaw si dëgër bopp ni du ko mës a baal ci àddina mukk yàlla dogal na ndaw si dindi na liggéey ba waa ji maanaam ndaw si dina liggéey bi ci fa ko waa ji waxoon wante taxul mu baal waa ji waa ji faatu ndaw si nag beneen góor takkaat ko ndax lañ ko defoon ba kenn du ko mën a takk dañ na uh-huh. beneen góor takkaat ko uh-huh. bi ko góor googu takkee ndaw si tëdd jëkkër ji mu maanaam jëkkër ji mu tëdd ak jëkkër ji. ki takk bu yàggul ki ko takk bu yàggul. nee na ñu tëdd ba guddi jëkkër ji tëdd côté bee mu tëdd côté bee seen diggante laalante nag amul maanaam kenn euh, laalante daal moom moog ndaw si. Mhm. nee na mu mel rek dafa am lu laxasu ndaw si sedd guy. ndaw si nag bi mu ko jógee bi mu yëgee ni am na lu ko laxasu comme jaan ndaw si mënatul yëngutal benn cër mu nekk ci melokaan boobu bëgg a yuuxu comme ku mbaccantaan jàpp nga xam ne dangay bëgg a yuuxu doo mën a yuuxu léegi ndaw si nekk fi di bër bër bër bër bër bër ba jëkkër ji yëg ko naka jëkkër ji teg ko loxo rek yëngal ko rek mu na na affaire boobu dafa dañ ndekete bi mu dañee am na lu mu ko bàyyil li commencé ci ndigg li mhm. ba ci tànk yi lépp deer yëgatul dara ndaw si nag amul fu mu demul ak fu mu yónnee pour loolu wér ba fi may wax yow ba bi ma koy mujj xam ndaw sa mënatula dox te dem na ñaar fukki at ci ci melokaan boobu moom jikko ju bees ji la walla ka mu bañoon baal la ju bees jee ko def walla ka mu walla ka déedéet ka mu ka mu moko liggeyon pour bu gor kotak. ko takk kooku nak bi mu demee ba feebar mom ku góor kooku bu wor ko ni mom dana faatu ci la dogo o ndaw si ko maa la liggéeyoon maa nga am jëkkër mais légui nak wor moy sama feebar bi duma ci jop mm-hmm. te bëgg na itam nga baal ma ak mm-hmm. lima ma la ko def defuma ngir bañ la dal dama la bëgg mbëggal go xam sama xol mm-hmm. mënuma may benen gor di la tak ma di gis da la taxon ma def non léegi itam ma ñeewant la gis ni xam naa ni danaa faatu mais doo am jëkkër ma bëgg nag mbir moomu dañ moo tax ma wax la ko pour nga dem dindi ko ndaw sa dem dindi ko léegi nag jëkkër ji ku jëkkër ji ko ko defoon loolu tax wóor ko ni moom dana feebar bi du ci jóg mu baalu ndaw si ndaw si lànk bañ ko baal mu baalu baalu ndaw si lànk bañ ko baal léegi nag bi waa faatoo ndaw si nag amaat na beneen jëkkër mu amaatee beneen jëkkër nag la ko mbir moomu dal te nee na ko laxasu te ni mu ko laxasoo dafa sedd mhm. te dafa dëgër dafa dafa dafa jàpp kii dafa jàpp maanaam euh, siditu ndaw si ndaw si mun la def benn réaction yëngu mhm. pour affaire boobu nañ léegi nag te mënul yuuxu itam. Mm-hmm. dégguloo moo tax ma ne comme mbàccantaan noonu ni mu lay dal. Mm-hmm. yàlla dogal na jëkkër ji bi jëkkër ji doon wëlbatiku laal ko rek affaire boobu dem. dem jëkkër ji moom yëgu ci dara. Mm-hmm. mu nettali jëkkër ji ñu ko yow maa ngi bëggoon nga laal ma mais am na lu dafa laxasu ci man yëgagul ni mënagul a dox de moom ndaw si. mu di ko nettali mu danga ma laa rek affaire bi dañ. mais sama tànk yaa ngi seet. léegi nag bi mu bi mu tolloo ci war a jóg moom ndaw si mhm. mënatul a jóg sëriñ ba ci seen fa mu nekkoon mhm. sonn nañu ca lool lool lool pour dañ ni amuñ ca solution ah loolu am na ñu wax ni ndaw si su fekkoon ne baaloon na waa ji mën naa am loolu du ko arrivé ndax waa ji kat def na lu bon mais def na lu baax ndax mënoon naa noppi mais yéene na ko mu dañ léegi nag mu baalu ndaw si ndaw si lànk bañ ko baal ba ba ba waa dee ci loolu ndaw si tam wax dëgg yàlla yaakaaru xanaa àllaaxira mais àddina bi moom dootu si dox moom kon baale baax na ab sëy itam kenn waru koo tas mais soo koy tas na nga ko teg ci kaw teggin te suturaal ki nga nekkal mhm. ndax bare na luy yàq sëy Euh, la leen ñoom ñaar duñ ko wax beneen deb débat la indi gàncax gi dafa am waaju doon sëy xam naa ni su yëpp ku mel ne Samba Diagne ndekete papay ndaw si dafa xuuxaan waaye si nag muy xuloo xuloo ndaw si mm-hmm. ni ko waaye jëmal fële yow sa papa dafa xuuxaan hmm? léegi mu ne ko xuuxaan mm-hmm. mu lo benn benn benn loxo benn kii léeg mm-hmm. bi lex benn benn benn lex bi léegi ndaw si fay dem seen kër bañ nee ko lan moo leen jotale ndaw si mun la wax na waaw suñu tëddee mu naan ma nangam di ma wax nii di ma tooñ di ma wax nangam ñu ne ko lu mu lay wax mu waaw dafa may wax loo xam ne neexuma ñu ne ko nag loolu ngay wax <laughs> léegi waa yaa ngi toog ci mbooloo mi de waa ji buñ ne ko yow loo jotee ndaw si mun yàlla xam ne ko defuma ko dara daal di log benn lex bi rek guux benn lex bi mu jóg muy def na ko defati na ko defati na ko ñu ne buñ ko defee waa ji moom bu ko defee ba pare ba doy bàyyi ba kenn gisul ndaw si mu xool ndaw si ba ndaw si xool ko mu góox lex yi mu ne ko defati na ko defati na ko waaye nangul wax wax lan la tax xam nga loolu si mag ñi jàngale mooy sëy ñaare bari na lu ci werante ba ndaw si pencoo ko ak waa te la tax mbir ma dëgg dëgg dëgg waa du ko wax ndaw si du ko wax kenn du kon. <laughs> li gën a jafe ci àddina mooy àtte sëy boobu. Hmm, waaw àtte sëy boobu. ah. lu nekk nag macha allah am na ci biir jaamu yàlla yi. Hmm. moo tax yàlla na mu yàlla doon sutura. xam naa am na loo xam ni jotuma dégg nga wax ko jigéen ñi dund te amuñu jëkkër ak ko bare ba am na si ñoo xam ne wax dëgg yàlla bëgg nañ jëkkër lool lool lool ndax yow loolu am nga ci ay tegtal mm-hmm. ba su nit ñëwoon ci yow ni jëkkër la soxla danga ko ko mën a defal ñaan walla am na ay tegtal yoo xam ne soo ko waxee bu ko jigéen déggee bu ko defee dina am boroom kër ndax ñu jigéen ñi bëgg boroom kër bari nañ lool de sànq sànq rek maa ngi doon andi naa ci waaw ci wàllu loo xamante ni waxu non seulement boroom kër sax mais lépp loo lépp loo kii rek suñu boroom mën na la caa fekk si ba nga xamante ne mhm. maanaam suñu borom. Mhm. dala ciy fekk c'est parce que gis nga. inna allaha waasiun alim mhm. kooku moom def naa ne gisuma lu ko gën a gaaw ci borom kër. Mhm. ñëw na ci alquran sotul baqara ñëw na fa ñëw na maida ñëw na baqara maida ali imran nuur إن الله واسع عليم إن الله واسع عليم بعد هنا نسمى جمل هنا بقرة كتف <laughs> مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل الحبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم هناك وكو am na ci suratu baqara ko moom nu mu koy def ba waasu ali ñona baqara ñona al imran ñona maida ñona nu waaw gisuma lu ko ki ki gaaw ci ci ci ci sey ci ci ci ñaari ay yooyu waa ali mun yooyu def turu ko jigéen ki nekk ci hmm. defna naa suma su ñet ñet wala ñent mu nga baqara al imran ñaara nga fa maayida def naa ñaar surtout nuur ñaara nga fa hmm. mooy yoo xamante ne lu yéeme la yeneen yooyu moom kuñ ca dugal di nga sëy moom hmm. am bu nga baqara imran maayida nuur hmm. te day jàpp na allahu fattaahu jaami wa razaqu waaw moo tax ñu am doole lool lool lool lool ci mën a fi sëyal jigéen allaha waasiun alim ñaari ayin yooyu macha allah te te yàlla mu leen tasaare ci ñetti ci ñetti saar yooyu baqara ali imran maida nuur baqara imran maida nuur waaw su ko foo foo la tasaare juróom benn aay yooyu nga xam ne yooyu yooyu toujours foofu la jeexee boo ko defee daal dina tax jigéen ji bu gaaw sax ah. waaw moom mu koy def da koy da koy bind bu nekk juróom-ñaari yoon léegi nag euh, waasun alim moom ku jigéen ki day day day nekk ci waasun bu yaatu ba alimun bi ka mu bëgg mu nekk ci euh, bay naa ba ka mu bëgg mu nekk nekk ca bu dee dafa taam bu taamuwul nag du dugal turam yëpp ci ñaari ayin yooyu bind ko bu nekk juróom-ñaari yoon moom moom bu koy bu koy laal moom léegi ñu wax ak moom wallaahi te sax ñu bëree ñëwandoo daanaka walla ñu du du doon xat. lu lu wasiyan lay doon lu yaatu lay doon. Mm-hmm. est-ce que. sax kuy kuy ñaan yàlla ci ci ci ci turam yi ci ci turam yii. Mm-hmm. moom jëkkër yi dina la yomb lool lool lool lool mm-hmm. muy waaw muy muy astaghfirullah al azim wa atubu ilayka téeméer yoon saatu saatu laa nabi téeméer yoon laa ilaha illallah muhammadu rasulullah junni yoon moom moom dafa dafa gaaw tamit ci mais saatu laa nabi mooy junni mooy téeméer mais laa ilaha illallah yëpp junni yoon la astafirullah wa atubu ilayka moom téeméeri yoon la xam nga astafirullah wa atubu ilayhi moo gën a bëri mais da ngay ñëw joxoñ ko direct wa atubu wa atubu ilayka boobu moom jëkkër sax daf ko xe loo ci ñaan moom dina fayakoon lay doon bu xasee ba astafirullah alazim wa atubu ilayka tuba ka tuba ka sa borom dem ci saatu ala nabi allahumma salli ala muhammad sallam temer yon ñewat ci la ilaha illallah bo mo junni yon la kooku moom daanaka lo talal sa borom rek moom la kay jox tabarakallah eh, la lo day ku ci sax xamna ne da nga gis ndir kon wallahi da nga gis lu reere ndax wa atubu ilayka la ale wa atubu ilayhi wa la wa atubu ilayk booy tuub lan ngay tuube ci moom boo bëggee li nga bëgg astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi dañuy bëri mais ngay ñëw moom noonu la gaawee ci lépp looy yóotu te jëkkër lu jëkkër ak jabar lu ndaw la ci li ñuy yóotu asa bu def sa ñaar rakk ju astaghfirullah alazim wa atubu ilayka téeméeri yoon téeméeri yoon اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تيمير يون دا نيو لا اله الا الله بكر جون يون بو نه نيو سي اليه يسعد الكلم الطيب وعمل الصالح يرفعه يرفعه يرفعه بو تاميت بو نه ديف كو 600 فوا جلو وات يونت بي تيمير يون لوكو ديكر داف كي ناو صاح لوكو ن لي لا فيكون لاي دون اسكو تبارك الله اه واخ دغ يالله lolu bok na ci li tax dund xawa neex ndax fo amé jigen jo xamni yàlla dogal na ngeen deggo wax deug yàlla dana tax sa dund gëna neex waaw lo xamni ni ku ko def daal su wërsëg mën na yomb lool ak temps yi man ni xaalis defé moma jaaxal ci man li dawal ko def xaalis jafe ci man lii demal ko def moom daanaka moom ah gisuma gisuma lu ko gën a rëy ci ci ci ci koom-koom. Mm-hmm. ci xaalis koom-koom. lu ko gën a rëy moom gisuma ko waaye nag ay dafa ay siwala yoo xamante ne moom nekku fi. Mm. waaw siwala yoo xamante ne moom daanaka moom newu fi te ku mu laal seeram moom yow di nga yëg ne moom am na li nga yëg ne moom am na lu laal lu laal moom maanaam gisuma gisuma lu ko gën a rëy ci ci ci koom-koom. Hmm. mooy mooy mooy nga bind sotul mooy nit ki. Hmm. Euh, nit mooy mooy nit ki bind nga xam ne dafa bëgg alal. Hmm. wërsëg wu yaatu. fatxu ay yiw daraja. diggante ak mbindeef yi yàlla may ko waxee ba comme ni nga ko waxee woon au moins que ñu ñëw ci moom nga xam ne lu mu bëgg su moom koy jox. jinne di ko daw nga xam ne xéewal yi nit ñi dañuy dañuy dañuy daw ci moom sax pour dimbali ko pour jàppale ko. moom lii moom ay siwo la yoo xamante ne moom mi ngi mbuur ca kaw kon moom wala boobu mu defal ko boppam maanaam day bind sotul baqara ba mu jeex xam nga baqara saar la ñaar téeméer uh-huh. waaw ñaar téeméer ay xam nga sa dafa bu dee saar boo bind. nga bind zuy na bu dee aaya boo bind baqara aaya boo bind nga bind zuy na li naas ba mu jeex ba baqara jeex. nga bind sotul anaam boo sotul anaam saar aaya boo bind. Uh-huh. nga du nga ar bo bo boo bind ci lana am rek nga bind fatul kitab alhamdulilahi rabbil alamin ba mu jeex ne bind sotul kahfi ba mu jeex mais ay bo bind rek sotul kahfi rek da ngay bind da ngay dugal course ah. course yu ci ci ci ci ci ci sar ci ay bu nek ba mu jeex ne bind sotul sabai yi ba mu jeex ay bo ay bo bind da ngay dugal laqad jaako ne bind sotu sotul saba yi wax na jaakum ba mu ba mu jeex bu defee nga tamit nga bindaat euh, sotti yuusufa mm-hmm. aaya boo bind nga bind ixlaas ba mu jeex après nga bind sotti ibrahim aaya boo bind rek nga bind inna aaya boo bind ba mu jeex nga bind inna haza la ma lahu min nafaadin nga bind ba mu jeex aaya boo bind nga dugal inna fataxnaa laka fatxan mubiinan ba mu jeex hmm? mm-hmm. nag léegi nag nga bind sotti xaj mm-hmm. aaya boo bind rek nga dugal waasin fi naas fi ci aaya yi ba mu jeex nga bëri sotu yaasin aaya boo bindee nga dugal wayen soog allahu nasran azizan nga bëri sotu charhi alam nasra aaya aaya boo bindee nga sotu nga bind inna fatahna laka ba mu wala nga bind sotu fatah aaya boo bindee nga dugal alam nasra ba mu jeex. nga bind sootul waaqia uh-huh. aaya boo bindee mu jeex nga dindi izaa jaa nasrullahi ba mu jeex uh-huh. nga bind sootul xadiidi uh-huh. aaya boo bindee nga dindi qul a'uuzu bil ba mu jeex nga bind sootul mulki aaya boo bindee nga bind nga bind rabbi habli mulkan rabbi habli mulkan laa yanbaghi li ahadin min ba'di innaka ba mu yegg nga mu sotul jinni aaya boo bind nga dugal qul a'udhu bi rabbil naasi dina nga jul ci yonte bi allahumma salli wa sallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman léegi nag nga tëjee ko alhamdulillahi rabbis samawati sami wal ardi wa ma baynahuma rabbul alamin lii ku mu laa seeram ak loo lu loo soxla ci àdduna suñu borom dina la ko jox est-ce que ah mbind mi xaw na sakkan saf na lool moo tax it bu ñu bindee yu mag a mag yi ca kaw lañ koy aj pour bañ kenn ku ko laal. waaw ci kaw lañ koy aj pour kenn bañ kenn ko jege ndax coono yi ci nekk. moo tax te moo tax walaal di nga yëg ne am nga loo laal moom. ah loolu de wax dëgg yàlla bokk na ci ndax xam nga dund na ma bu la yàlla mayee nga dund. Mm-hmm. alhamdulilah yàlla may la wërsëg. ah boo jaamoo yàlla rek am nga sens su ko defee nag kon yàlla na yàlla yombal dépense yi amin amin yàlla di yombal luñ ne facture ndox nga xam ni ak sonde facture ndox passé foofu facture courant courant nag bi ci tane mooy bi nga amee carte mhm. ndax xam nga carte yi yow yaay yaa xam. dafay dépendre rek. Ah. waaw yaa xam boo amee lakk boo amul du doo lakk. Mhm. mu nekk su fekkee compteur boo xam ne dañuy ñëw di relever. Mhm. yenn saa yi ñu jox la loo xam ne dëgg dëgg da nga lii lakkuma. ko li ci xuloo ak lu nekk. waaw. Mhm. ak itam nag yenn saa yi ñiy indi facture yi ñu xaw a yeex. parce que fi muy ñëwee ak fi délai bi di ñëwee. benn la. te seet te Fatick seer ba bëgg a waaw ah mais ñu ngi wàññi. Mm-hmm. na ci courant bokk daal. waaw courant moom. courant ndox am na leneen itam lu sonle lool. Mm-hmm. muy gaz. gaz. gaz bi jeex. est-ce que <laughs> ah, de moom ñëpp ñëpp ñu koy jàmbat moom. war koo yenu teg teg ki war ko yenu di xool foo koy kii waaw wallaahi ah dañ wax dëgg yàlla eh, sànjiri mhm. yàlla na la yàlla dolli yokk ci zahir ak baatin amin amin way yàgg amin ñu bokk ndax am volonté jóge mbuur mhm. ñëw bokk ci daara fajtal nga dagg sa itte yàq sa ay nelaw yàquwul sax nelaw yi yàquwul xanaa olof ay waxe noonu rek ñëw dundal bis bi ci xam-xam te joxe ko wax dëgg yàlla loolu am na solo lool kon nag defe naa ni nit ku baax ku def ku ne uhuh. lépp lu muy def yàlla mën na ko yàlla dana ko da koy fay. Mm-hmm. ndax ku def lu baax lu ne. Mm-hmm. ala kulli xaal daa am payow yàlla. Mm-hmm. kon def naa ni payow yàlla moom nañu ko séentu yàlla nañ ko yàlla jotale. te itam nag pay gi na ci wërsëg ak wér am. wallaay wallaay. ak wér. léegi nag dinaa la ñaan. nga baaxi doomu aadama yi loo xam ni. dina tax wërsëg am. mais dina tax itam wér am mhm. waaw tey laa doon li gën a jëfe ci àddina fii ñu toll mhm. bokk na ci wér wér mhm. ndax xam nga wér gi yaram daanaka mooy lépp ndax bu yaram wi wéree leneen ngay tal mais bu yaram bi wérul dootu tal lenn lu dul wér rek daana dégg ci suñu benn kilifa bu doon wax ni yàlla musal ci am benn soxla mm-hmm. ñu ni ko mooy lan muy feebar ndax boo feebaree benn soxla rek rek nga am ci sa àddina mooy wér waaw mm. ah te am na mbokk yoo xam ne wére di dab na leen mm-hmm. surtout mag mm-hmm. ñaari feebar walla ba ñetti feebar sonal na mag benn bi mooy cataracte mooy sonal na mag bi ci des mooy prostate sonal na mag waaw. Ah. yooyu yooyu de xanaa ñëw na ci daara ji ay ñëw na ci daara ji ay yooni yooni yooni. Hmm. mu ne yooyu de xanaa de ñëw na ci daara ji ay yooni yooni yooni yooni. Hmm. Hmm. ñëw na ci ay ay ay ay ay ay yooni yoon xam naa ah. Ah. ne. waaw waaw. ci daara ji ay yooni yoon. est gis nga. yenn saa yi ñu tegtal joxe tegtal ci ci ci ci ci reenu reenu reenu siddéem mm-hmm. daal lu ko gën ci feebaru biir gisuma ko reenu siddéem reenu siddéem danga baxal ko rek di ko naan reenu siddéem lu ko gën maanaam dafa dafa mën a faj feebaru yu sew sawaan yooyu yëpp ci ay ah. prostate ak feebaru naq ak feebaru bii rek yooyu yëpp yenn système da cee man lu baree baree baree bare mm-hmm. gis naa ñu baree bari eh, fonk ko loolu ren système su ma fële fonk nañ ko loolu wax dëgg yàlla muy muy loo xamante ne daal ñoom daal yittewoo nañ ko daal mm-hmm. bu baax sa si de moom daanaka ren bi moom liñ ko bàkkee bari na ba ci feebaru biir yooyu yëpp da koy da ko fay jële est-ce feebaru biir moom itam xam nga ñëwoon naa ci feebaru bopp bopp feebaru bopp boo xamante ne nga euh, sunu maam jooju ma ci tudd léegi suñu mhm. Abdou Lahad Mbacké waaw moo ko joxoon benn benn koo xamante ne dafa ñëw fekk ko laajte ko ñu ne ko dafa dafa yóbbu dafa yóbbu mbokkam pour ñu faj ko boppam buy metti léegi nag mu ñëw nag mu ñëw nag fekk ko fa bu ko fekkee rek ba mu ñëwee fekk ko fa nag ci la ci la ko ci la jox benn ci la joxe benn mbir ne bu ñëwee ko bindal bi ko bindalee ndeysaan kooku daanaka rek ba ko laalee. Hmm. incha ci la ci la ci la jógee. mooy dafa ñëw fekk benn kii benn xaritam wëllëram mu ñëw seet si ko moom Sëñ Abdou mu ñëw fekk si ko mu ñëw seet si ko. Mm-hmm. ñu ne ko mu laajte ko ñu ne ko moom ne dafa dem yóbbu benn doomam boo xamante ne bopp bopp boppam bi yóbbu lañ ko fu nekk pour faj ko. Mm-hmm. dugg na fu nekk scanner bu def nañ ko ko pikiir bu nekk dem na ba bu ko bu ko dikkee daal dañ naan rek bis bu ko bàyyee bu ko bàyyee daal ci lay am jàmm docteur yi jéem nañ ba mënatuñu Sëñ Abdou génne. ci fo ki bind ne bu ñëwé ne ko na bindal li raxasse ko mu di ko mu raxasse ko boppam mu naan ci aaya bobu nak moy rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin sotu namli ko ko bind juróom ñaar yoon mu ne mu naan ci raxas ci bop bi keroog la koy bopp di gëj a daaneel ndax dafa ñoo fekk wóllareem bi mu ne ñu dafa dañu yóbbu doomam ji pour ñu fajal ko boppam bi te bopp bi yàggul lool metti lool dem ba pexe amatu xanaa yàlla nar na koo dimbali ba kilifa googu romb seet si ko bàyyi ñu ne ko bàyyam daf ko yóbbu faji ko mu ne ko lu ko dal mu ne bopp mu làmb mu làmb ci jiba ji génn fooy bi ne bu ne bu ñee ko bindal ak ñooñu nañu yegg ca yàlla ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صوت النمل هم آيب منكم هم آيب منكم عسى فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي وفتبسم دغو باي ضاحكا من قولها لين مو دغو باي سبق له دفتر ربي سما بروم او زيني ان اشكر نعمتك أنا انعمت علي وعلى والدي انا عمل صالح ان تبداه اصلا وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين مونكو نكو بيند جيروم نيار يون تيوكا تي مونات نيتون تي غودنا نكاي بيند مو خالا تي بوب ري مخ تدنا لا بوتين بو نلاي بو ياو دوتو دانال اسكي أه. ها دوري تبارك الله سانجير يالنا يالا فيلا امين امين بوب نيمو كومبليكي بوب اك نيمو كومبليكي am na gis naa ñoo xam ne moom danañ ko mocc mocc ko ba yàlla dogal mu sedd euh, ñooñu alxuraan lañuy wax walla leneen la ñi koy mocc alxuraan lañ koy alxuraan lañ koy war a mocce parce que euh, lu ko mel law anzalna haazal quraana gis naa ne lu mu mënul lu mu mënul ci bopp gisuma ko mm-hmm. Mm-hmm. ñoo xam ne sax duñ ñëw ci alal sax day ñëw ci ci ñetti ci ñetti huwa yooyu ñu daan jàng fatiha rek huwa allahu lazi la ilaha illa huwa alimul ghaybi wa shahadatu huwa rahman rahim jamaat huwa allahu alxaaliqul baari musaw ñetti huwa yi rek la ñuy jël waaw rek xëy na law anzal naa dañuy bëgg a jël saar bi barkeelu ci mais am na yoo xam ñetti ñetti huwa allahu yi la ñuy jël rek daf ko ci di ko mocc boppam di ko mocc boppam mu ne selaw ba bi taxaw هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم بن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المركب سبحان الله ما يشركون muy ñaar هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى ba muy ñetteel wa am ñoo xam ne huwa yooyu rek moom lañ koy moom moom lañ koy mocc incha allahu taala kon daal yàlla bi mu ñu bindee wutal ñu maanaam ñu dëkk ak jàngoro yi jàngoro ji nekk yàlla wax na la mm-hmm. wala indi na trouvé trouvé na solution boo xam ne yàlla mën na laa tàqaleeg jàngoro boobu wallaahi wallaahi kon de loolu lu mat a am la mm-hmm. lu mat a xam la ak itam biir buy metti jàngoro biir yëg mm-hmm. naa ni jàngoro biir dégg naa nag ñuy wax ni biir buy metti jigul góor waaw yàgg nañ koy wax de jigul góor mooy kon mel na na jig na jigéen amoon na góor bu ñu wax ni li mu daan faje biir buy metti mooy mhm. garab bu ñuy tuddee amul kenn amul kenn amul mhm, ker hmm? amul ker walla non amul kenn mhm. dama xamul ndax yow xam nga ko fa ndax njaambur amu ko garab gu amul kend garab goo xamante ne day naaj rek fépp amul kend amul dara. waaw bi ma ko laajee amul kend dañ ne ma ñax la boo xam ne bu saxee. Mhm. bu suba teelee. Mhm. dafay mel ne lu banku. bu jant bi fe ki fenkee. Mhm. jant bi rek lay wiisi foofu lay dugg. Hmm, d'accord bu jant bi nekkee ci digg bi mu nekk ci digg bi bu jant bi demee soow mu dem soow. Hmm, hmm. ñu tuddee ko amul kenn. moom du am kenn moom. xam naa bu dee ci wàllu alquran nag saar saar yi amul kaaf. moom dinañ dinañ koy bind di ko jox borom biir biy métti. ñetti saar yi nga xam ne nag kaaf amu ci. muy li ilaafi quraysin amul keef. qul bi rabbil amul keef. wal asri inal insana amul keef yoy mom buñ ko bindé bu nek ñett yoon biir bu ma fekk di mën nako fa jële mom biir bu fa fekk bu mu mëna doon ak bu mën doon waaw waaw mën na fa jële mo ñett saar yi nga xam amul kaf mm-hmm. waaw yaakaar naa ni mag ñi bi hôpital bareegul woon xaw ma ndax amul woonam déet mais daal bi boo hôpital bareegul mag ñi yàlla mayoon na leen seen fexe mu ñu daan faje waaw am na lu ñuy tuddee suukar سكر مام توابي يكفي عندي ولا مغني يكفي عندي ولا مغني أمان نجلون دان سكر لودل سكر توابي مغني لك دفنا أنا أم دفنا أنا مام سكر دفنا توابي يكفي عندي مام سكر نعم أنا توابي يكفي عندي واو مام ما كفي عندي مغني سن الله دقر يا داول أم سكر خرم لا لا لا أم تودي دي كوجفن دي كونانو waaye eh, suukar bi moom ñu wax ñu koy wax sukaran sukaran sukaran li hmm. loolu ko di wax sukaran suukar hmm. sikar waaw bii moom daa mel ni tubaab yoo ko fi indi jële ko ci gàncax hmm. waaye daa mel ni léegi ñoo koy fabriquer seen bopp daa mel ni gàncax ga da leen a mateetul daa mel ni léegi ñu koy fabriquer seen bopp léegi sax waaw ñoo koy fabriquer seen bopp ndax ñu ko daan jógee ci jàmb suukar yeeg ñu ji ci ci côté Saint-Louis risatol waaw risatol daa mel ni léegi nag dañ koy importer bitim réew parce que quantité bi ñu ci bëgg pour defar ci suukar quantité bu amatu àll bi amatu ko wala suuf si nangootu dañ koy wuti transporté ko di ko indi léegi liggéey ko seen façon bopp moo ko mi ñëwee moo ko meew mi nga xamante ne dañ ko daan dañ ko daan ratte ci nag yeeg kii yeeg yooyu léegi ñaam bi jéeg lépp lañ koy lañ koy defaree. Hmm. ñaam bi jéeg lépp lañ koy defaree di ko transporté di ko andi ci ay ci ay saaku. te du te du meew wala wala du meew nag du meew kii. Hmm. meew bu ñu defaree bu ñu keree ci puloox puloox nag mën na nekk doon meew. parce que dafa weex. Ah, est-ce que loolu du du du wàññi wala. ah du doon meew de puloox rek xam nga ñoom seeni technique. Hmm. nañ def rek mu xaw a jël xet geeg yooyu. Hmm. waaye nekkul ne boo ko naanee nekkul meew ngay naan dina weex wala mu xàll. ñu am produit kii bi wala yooyu daal ñu am produit. xetu meew kuñ ci def tuuti boo kii mu weex seeni technique waaye du waaye nekkul ne meew ngay naan moom nekkul meew ngay ngay naan kon sukkar boobu ñoom ñoo ñoo ko fi créé moo tax xam naa muy dugg ci deret nit ñi di yokk seen tooma tóole nan waaw waaw waaw man de dégg naa ci mag ñi bi ñu amagul sukkaru tubaab mag ñi daanañu sukkare garab bu ñuy tudde béer béer waaw uh-huh. xam nga doomu béer dafa saf sukkar waaw dafa saf sukkar uh-huh. moom lañ daan tuddee njaw uh-huh. xam nga njaw njaw njaw lañ koy tuddee doomu béer waaw buñ ko bu ñu jëlee doomu béer bi mooy doom bu maroomu chocolat boobu waaw daal di koy togg buñ ko toggee mu nekk ndox ndox moom la ñuy garde suñu amee lu ñuy bëgg a lekk pour mu neex a wan ñu natt ci njaw mi def ci du savana dana dana wàññi tuuti ba mu neex a lekk noonu lañ doon def ndax doom bi rek dafa saf suukar moom waaw doom bi rek dafa saf suukar mën nga cee boole yu bari sa baaraam ni mokk ko. ma hmm? doom bi mën nga cee toj yu bari sa baaraam mokk ko ndax dafa saf suukar. doomi beer waaw. su ko bay lekkee dee. Hmm? doomi hmm. xob yi. doom bi doom bi. d'accord. mook xewar. waaw mook xewar doomu xewar. su ko bay lekkee dee. kon mag ñi ci lu mel noonu daanañu gas itam lem bu ñuy tuddee dànkew dànkeew mm-hmm. xam nga dànkeew rek déedéet lem la buy nekk ci suuf bokk ak bi yamb di defar déedéet yamb bi muy defar ci garab lay nekk mm-hmm. dànkeew bi muy def ci biir suuf lay nekk gas naa dànkeew man ak sama benn moroom ca Ndofane Lageen Ndofane Lageen mm-hmm. Ndofane mi ngi ci ginnaaw Kaolack Ndofane mm-hmm. sama benn mbokk ñu koy wax Cheikh Mbacke Diop Cheikh Mbacke lii may wax nag 1970 la. 70. Mhm. ah loolu yàgg na yàgg na waaw. léegi dànkew. Mhm. dafay nekk ci suuf mais ci janj lay nekk janju dett weer. li arab tudde ak tallatu tallatu mm-hmm. mooy jànj dett ndeer mm-hmm. léegi su fekkee dànkew gi am na ci mm-hmm. dafay mel ni benn raakoor bu ndaw mu génn ci biir ci mu génn ci bitti soo ko xamul nag dangay dangay doo doo xam ne dara la mais boo xamee ni kii dànkew la boo ko gisee nii mu def benn raakool bu yëkkatiku boo toogee tuuti nga gis yuul yuul yu ndaw yi yu sew yooyu yuul yu sew yi uh-huh. waaw dañuy dugg di génn ñoo koy defar uh-huh. bokk la dànk doo bokk la lemu yamb uh-huh. mais boobu de boobu tamit day saf suukar comme bu yamb la loolu xam nga boo gisee ñuy wax consommer local la xaw ma consommer local mooy ñun. dunde li ñu li ñu li ñu bay fii. Hmm? ma di di dunde li ñu bay fii. waaw mooy ñun dañu dañu am lu nekk. te daanaka amuñu benn góorgóorlu. Hmm. maanaam sénégalais dafa bëgg lu yomb. di hmm. tubaab yi ñëwee indil ñu lañu daal di bàyyandi tubaab yi itam. man nag aw ma ci xam-xam nag dama dama sama njort rek moo ma ko may ma jàpp ni est-ce que bàyyee ño bàyyi bàyyee ndiku ak ñoom ñu ñuy jox li ñuy lekk muy jóge ci ñoom est-ce que óor na ci ñun waaw du ñu wér de su boobaa hmm? kon du ñu wér de bu ñu war ñu ñun ñu feebar ñun ñu feebar kon. waaw moo tax ñu daal di fexe créer ay pharmacie ndax xam na ne ñun dañuy feebar. kon nañ ñu créer ay pharmacie pharmacie maanaam garab yooyu est-ce que danañ ñu faj wala daf ñuy dànk xam nga faj ak dànk bokkuñu. en tout ci bari de moom faju ci ñuy dànk. waaw xam nga boo xoolee. na ma yàlla baax benn waaye dafa doon wax ne ñun tuuti lañu gën a yeewoo suñu xar yi ñu yar. tuuti lañ leen gën a yeewoo. Mm-hmm. dànkeew boobu. Mm-hmm. dafa am nuñ koy gase. Mm-hmm. sooy gas dànkeew. ni mu nekkee ni mu nekk nii ki solom nii yëkkati ko. jël bant bu gudd. bantum walla nga jël caxat. caxat bu xam nga caxat dana sew te gudd dina mën nga ci am lu mat meetar caxat boobu nag ngay roof ci biir ci biir kii bi tiwo bi léegi nag doo gas tiim ko de da gas ci pegg bi ni mu dànk bi nekk nii ngay gas nii di ko leru waaw di ko leru di roof kii bi muy dem bu la bu la kan mi réeree nga ñàkk waaw bu la réeree rek nga ñàkk. waaw moo tax ku ku xam nga olof dafay wax ku ku tenkoñ xam nga tenkoñ. Mm-hmm. tenkoñ mooy ku teey te yeewu. Mm-hmm. comme tey bu wëñ lëjoon wëñ wëñ. Mm-hmm. wëñ gi lëj. wëñ gi lëj. ñun la lijjanti ko te bu mu fasu. te bu ko dagg. xam nga yëpp mag ñi dañ ci daan jàngale xel. léegi nga lijjanti wëñ googu ba mu dañ te wëñ gi du fasu doo ko dagg. doo ko dagg. Mhm. kooku la ñuy tuddee tenkoñ. tenkoñ waaw. waaw tey ku dal. waaw léegi nag kii gas dànkew bi. Mhm. nit ku tenkoñ lay doon maanaam fokk nga liggéeyloo sa xel. Mhm. tenkoñ. waaw boo demee ba jot dànkew bi. gis nga ànd yu ndaw ñi nit yi ñuy yi ñuy def ndox mhm. te boo demee Tiwaawan nga gis ñun du ko jaay ci côté Njaasaan ànd yu ndaw yooyu yu xonq yi yu xonq mhm. lii def lem gi mhm. noonu lay toll mais nag du xonq dafa mel ni ko ràbb moom lu ñu ràbb lay doon dafay xaw a gir yi moom ngay fekk noonu yenn saa yi nga am ci lu tolloog euh, lu tolloog lu tollook euh, leget bu ndaw wala lu tolok bol bu ndaw ci lem mhm. xamne lool rek ngay dindi kok tam dafa am nokoy dindé ndax dañ wax né da fay nek manam da ngay continuer wat gas bo joté mbuus manam ki bobu mhm. euh bo bo bo joté and bobu mhm. da ngay continuer wat amat na benen dankaw bi nekkat ci suuf suuf ni bo démé ba am ñaarel bayil bu ñettel ba jinné nga fay fekk hmm, normal mom la mom lañ doon wax nak kon ne fi jinne la ah xam naa yóol la daal yóol a koy def mm-hmm. mais lii mooy wax ni yàlla moom ni ma bind xam na ni man ak sama mbokk moomu ñuy wax Cheikh Mbacke Diop mm-hmm. ca Ndofane la dem mm-hmm. mille neuf cent lii ma wax mille neuf cent soixante-dix la soixante-dix waaw yàgg na ah, waaw kon loolu jot nañ cee jaar ba lem gu neex la yore amaat na beneen lem nag bu ñu tuddee kolkolaat kolkolaat. waaw kolkolaat ba tey yu koy def. mais ci garab la koy def. waaw. kon du yamb rek mooy def mooy def lem. déedéet yuul dana def lem. amaat na beneen euh, xandanduur. xandanduur. dana def lem. ñaari ñaari li ci ëpp moom xandanduur boobu mi ngi koy def ci bantu salaan bu wow. non dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ma ne dañuy xool ñun lu nekk am nañ ko te xool li lépp réer na mër daanaka soo koy wax ku la déglu dafa mel ne kuy léeb yàq garab yi yàqu nañ <laughs> waaw eh, yàlla xam na ko dëgg mel na kuy léeb wallaahi mais nag yamb la alxuraan tudd mm-hmm. muy lem yamb moom li lemu yamb mën nga cee am bidon dix litres te am na dañu ko daan nemm xam nga nemm nemm ni lam ah, mooy nga dem uti yamb d'accord dañuy bàyyi ba weer wi taaw ba weer wi lëndëm mhm. ci la ñuy ci la dem lemmi lem waaw mhm. ndax ci lëndëm lëndëm gi mhm. la yamb yi di defar lem bu leeree ñu ne dañ koy naan. guddi ngay dem. defaru ba baax sol say mbubb muuru ndax yamb dañ lay màtt. de wallaahi am na lu muy bàyyi ci yow ñu koy wax wax taban. taban. cat lu sew lu nekk ci taatu yamb bi. bu la ko nee cuut daf la koy bàyyi su ko defee dafay néew. kenn kan wax kenn koy kenn waxatu ko waaw mën na rey nit mën na rey fas mën na rey lu nekk te hmm. yamb li mu gën a bëgg mooy lat ko lañ hmm. foo xeeñe laaj ko lañ mu topp sa kaw waaw mu dal ci sa kaw am na beneen lu niroog yamb hmm. moom itam dana màtte comme noonu ñu ko tuddee jaxta jaxta jaxta ndéem jaxta ndéem waaw moom ñaare dafay màttaate comme ni yëmb di màttaate mais daal yàlla daal moom moo sàkk lu nekk yooyu yëpp nag xam naa ni mi ngi xaw a dem ndànk par ndànk ndax lu tax la doon suñu cosaan mag ñu doon ko def lañ bàyyi uh-huh. moo tax problème yi ñuy dal di ñu dal di ñu dal kon nak eh, da ngay dama bëgg nga joxe sa numéro uh-huh. ndax heure ba ngi jot uh-huh. su ko defé nga xam ni ku soxla gañ siri eh, astagfirullah eh, sanjiri uh-huh. ku soxla sanjiri job, mbuur so xoyo bo soxla yalla mëna dogal mu faju inshallah taala so ko owe itam man ngeena jokkolo ci téléphone ndax faj yomb na. Uh-huh. am na lu gaa ñu tuddee cag cag la xaw ma. Uh-huh. cag cag cag cag la fee na. Ah. Uh-huh. mën naa jóge mbuur ñëw fii. ah wéef am na. man ngaa jóge man ngaa nekk Dakar yónnee ko xaalis. kon gis nga àddina bi ni muy ni muy demee. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom la yàlla yónni. nga xam ne moom risaalaam ba àddina tukki mooy continuer di dem. newon na dana dem ba adina bi yep ben buntu ben keur lay do uh-huh. léegi lay xew ci france uh-huh. soo neexee yow ak wa wa france yéen a koy seetaanandoo uh-huh. yow ak wa amérique nga tok fi ngay setan ngeen di setan ndo kon loolu ben keur la kon defe naa ni sallallahu alaihi wasallam sallam lépp lu wax deug wallahi ngeen tok ngeen di jokkolo di waxtaan man na nek man man na nek dakar Uh-huh. nga nekk mbuur uh-huh. kii nekk ndar uh-huh. ñun ñett ñu toog di waxtaan ci téléphone te kenn ku ci nekk xool distance ba mu nekk te ñuy waxtaan comme ñaar ñu toog jàkkaar wallaahi kon nga gis ni technique bi avancé na loolu lépp nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko balaa muy dem loolu mooy wane ni la mu ñu wax ci àllaaxira buñ demee daañ ko fa tabarakallah dañ fi di sa numéro ban la sanjiri 77 77 456 456 87 87 80 80 77 77 456 456 87 87 80 80 waaw ko def moom di ma jot moom da nga ma koy jox ma bind ko ndax xam naa ni fokk nit ñi danañ ma sonal te man suñ ma sonalee ma sonal ma sëy ma sëy kaalilu daal moom moom xam naa ni nee na nee naa tabaski bu jot war naa leen di baalu ak ndax ku ma sonal ma ne la laajal ma sëy wala laajal kaalilu kon sëriñ Sanjiri Diop yàlla na yàlla fay la yiw yàlla barkeel xam-xam bi te yokk ko tabaarakallaahu mbokk yi nga xam ni yéene ñu doon déglu ñi ñaan yàlla yàlla na yàlla may ñu wér ak wér li euh, su ko defee kon 77 456 77 4 456 56 87 80

ndax ko xam ni yaa ngi waxtaan yeewu nga jàpp teg sa kaamilu alquran ñu ñëw fekk ko mu tëdd faatu allahu akbar rek yàlla ma ne ko faatu bi de metti na mais misaal ni rafet na wala shahid la rek daanaka waaw ak ak itam sax maanaam ci liñ mën a wax am na yeneen yoo xam ni jëf na ko tabaarakallaahu ci jëf yu rafet daanaka dafa ñëwoon fekk famille bu jaxasoo ndeysaan mu ñëw jumbanti leen ba ñëpp ñëpp ñu juboo mu doog a faatu loolu rek mën na ko yóbbu aljana wallaay ndeysaan yàlla ko yàlla may àjjana yàlla wax si mbokk mm-hmm. eh, noonu noonu noonu noonu ku ko dagg waaw daal de ko jokk moom moom ah? moom daal ci moom yaakaar bu kon daal yàlla na ko yàlla may àjjana. amiin amiin bi jaahi rasulullah suñu jigéen boobu. ñu itam waaw suñu jigéen boobu defe naa ne ñu tudd Xadi Faat Faat Jool. non sa sa mbokk Faat Jool. Faat moom itam waaw maa ngi koy dégg trop. moom itam ci daara ji la nekkoon. Hmm. nit ku baax la. ku yaru ku fonkoon daara ji la. ndeysaan hmm. soxna Faat Jool. Hmm. mi ngi dëkk fii ci Médina sori ci jàkka cëriñ. moom itam ci daara ji la bokk moom soxna Faat Jool. yal na yàlla tàbbal ko àjjana. na amiin atte ko ci yërmandeem. amiin amiin amiin amiin. Euh, euh, rakku masay bi nag mi ngi tudd Xadi Jong. Xadi Jong Xadi Jatu Jong. waaw Xadi Jatu Jong. moom itam yal na yàlla may ko àjjana am na itam ko faatu tey. Hmm. ku mu rob tey moom itam. Hmm. kon masay fan yi moom. yàlla na yàlla na dem a dem a dem yàlla na dee gëj. waaw na fi gëj moom. comme moom fi moom daanaka yenn saa yi da lay. teg par soog rek. koo yëngutu rek mu dem. su ko defee mais nag noonu la ñuy dem demal maa ngi ñëw la rek. moom la mag ñu doon wax. waaw. yàlla mën naa dogal mu gëj fi lool xam naa du mënta ñàkk. waaye mën na fee gëj. waaw amiin waaw yàlla na fi gëj. amiin amiin amiin bi jaahi rasulullah. yàlla na fi gëj kon baax na. allahumma salli ala muhammadin wa sallim. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bokki auditeurs yi rajo municipal de Dakar RMD yéen ak Cheikh Ahmad Tidiane ñan ci guddi ajjuma bu 23h jotee muy fukki waxtu ak benn 11h ci guddi waxtaan ak jullit yi yee leen alquran ak hadis sallallahu alayhi wa sallam bu une di du matin jotee mu tàmbali fajtal toog ëtt bu yaatu ak ay borom xam-xam wax li jëriñ doomu aadama yi ci seen wàllu wér-gi-yaram ngeen di ci ànd ba tey